probio naturel mbokk yi seen jaaxle jeex ndax probio naturel daf leen indil ñaar ci ay de bio 100 naturel ñu defaree ko ci gàncax bi maa wax probio naturel daf leen indil probio naturel alde muy produit bi nga xamantane renforcé daf lay renforcer carrément ci walu sëy tagalé la ak ay jafé mom new katan ay mbiri tële nag moom koy dégg rek probio naturel simpi bi nak bi nak moy toppatoo sen yaram ci walu yax manam bolem lu ngeen amone ci ay ci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 yegsi na diggaan gu bëri na tànge weeru mbégte weeru yërmande moo gën ci weer yi koro jàmm ak taw feex laa leen di ñaan alhamdulilah man maa ngi santaat bi ñu yàlla mayee ñu dundu fekke waat santaane yàlla ci suñu ngëneel ne leen ko def ñu looloo ñu waar asalaamu aleykum aleykum yee assalaamu aleykum aleykum yee assalaamu yow nag man man say say say affaire moom mooy bëgg a jaaxal daal. lan moo li xew xam nga ko. parce que yow maag yow waxantewuñu wuñu woon lii. waaw da ngaa jiitu ma topp sa ginnaaw. waaw yow lépp lu war a am dangaa war a toog waxtaan ceeg man. <laughs> waaw dëgg mhm. yow financement yi génn. waaw nga yëkkati 2 millions jox awa ba. mu ànd ak mbooy mbootaay. waaw Badjo. kan moko gëna gën sonn ci affaire yi. waaw ñew na fi di ma kalaamee ak yow. Mm-hmm. laalul dara ta saa ne moom ci sunuy affaire. Mm-hmm. dégg nga ma waxon man gisaguma dara bima ci ëppal solo nak moy sama auto bi nga ma waxon nee nga commandé nga auto bi ci Mansour Ndaw. waaw waaw. ya Mansour Ndaw waaw la ne la auto yi ñewugul dafa la bëggal auto bu bees. waaw man mais man gisaguma auto ba lé da nga yaakaar auto da nga koy commandé rek mu ñew Mansour Ndaw bi ma waxon dafa nekk auto bu bu bu mu ne ma bii du jox dërëm ndax dërëm sama xarit la xaaral mu wutal ko bu bee sàq loolu dafa jar man daal say tafa man daal. ma man daal say affaire daal am na la jëb la jëb. daal bu nu réeroo waroon informé ni jox naa awa 2 millions. waaye Badzo day mandi bu ma jëlee xaalis jox ko Badzo moom lu dama koy jox muy woo ay xaritam ñu toog ci biir néegam ma yokk ay mandikat Badzo neexal naa ko ni ko xaar mu jox la 20000 nga jënd ca piis wala nga jënd ca dara mu ne bëggul lu mu ko jox ko sulaar. ah waaw déedéet yow tam man li may def def xam naa ko waaw man daal bëgg naa waxtaan bi ci ma digganteeg yow daal lii am ma ma di ko yëg man maa tuub man maa jégalu ma xam nga boo nekkee ci campagne dafa am yooyu fàtte yow tamit day ma fàttali comme ni nga def nii waaye bu ca léegi boo jógee yow ah, wool Mansour Ndaw ah. nga ne ko mhm. ndax oto bi ñëw na wala ñëwul ndax daf ma doon wax ay 400 6 ak ay yooyu ma ne ko dërëm 4 4 laa koy jox ndax mérite woon <laughs> yéen a ngi ci ngeen <laughs> def ah, a ngi am jàmm yéen a ngi ci jàmm ah waaw waaw ñu de kër gi bi nekk fii ci biti ah, ah. xanaa fu ngeen demoon bay ñam tàngaay ni yal seen tuub bàyyi leen tuuru koor gi ba koor gi ah, passé doon waxaale sa mbir mi di ah waaw waaw waaw yow fi mu ne nii gars yi demuñ tour de yow la ñuy campagne man la ñuy tuural kontaan naa ci yéen kontaan naa ci yéen war rek daf ñoo war ah, rek waaw waaw waaw bay si say weyu tànk waaw loolu di dëgg xam nga nit nag duñu jël koo xamante ay saaga ay ndey ak hmm. di saaga ay jàmbur ah. vulgaire bon ñu koy fal ay chef de ñu nekk ñu ci terrorisme ñoom dafa bëgg terroriser nit ñi par la force ñu voté ko fa naam te man li may def ni ki sédal mom yow sa jëkkat sédal xana kay naa fekk ko dug rek ak bëggub deureum waye bi ali di ah, ah, ah, di di gaañu moom mi ngi tok ni jarul ngeen di xëccio jar mustafa mi la wóolu ci quartier bi lolu kay leer na ah yow yow sa kilifa nga dëgg la waaw man nak da am luma ma a laaj waaw parce que ki ñepp xam nañ ne ci yow la né waaw leer na waaw ci yow la fa leer na mom tay buñ doon sànni carte yow lay sànni leer na leer na leer na ki mm-hmm. la xamul fu mu bokk ndax mom jëkkëram xam nañ ci mbokk mo yow ki ki te mu la bok ah, mom na wax fu position ñu xat dama bëgg soy tudd tuddal sama jëkkër mm-hmm. yaa ngi dégg man sooda la tudd waaw waaw te la may génn di ko dàq di ci all ba ma indi ko sama biir kër gi mo ma gën ah, lu leer la bëgg rek mi ngi noonu jaag léegi nag ci biir loolu dama bëgg ñaar ñi lepp lo xamanteni mbiri otes la ak nu otes yi mëna tollu ci bis bi may wajal ma yëkëti xaaliss bi laaj leen ma ñaata la ma teg leen ko seen loxo. Mm-hmm. ngeen sol nekk ca kanam. Mm-hmm. ñeneen ñu topp seen ginnaaw. jeex na looloo dëgg. mobiliser ñëpp ah, waaw waaw mobiliser ñëpp am nañ ay tour ay nit ay. ñaata ngeen soxla ci xaalis rek a xam. waaw loolu moom faa ñu xool ñaata ñaar natt bi ñaata lañ déjà fi ñu jógee rek cent personnes lañ. waaw cent cent ak ñeneen ñi ñu doon jaar seen kër yi. di fëgg di leen ko yëgal waaw waaw waaw waaw. Eh, eh, eh, sama jabar bokkul foofu mmh. ala te bom ala hen sama jabar bokul si hôtesse so soo du bokk si hôtesse maa bokk ba mu eh, xam nga eh, maa bokk ba mu ne wala dama lay wax buguma wax dama wor boo sama den bi day met dama lay wax rek ñëpp wor sooda mii daa mii daa hakku ne ne ma dañ problème buguma wax sama diggante do doo bokk si hôtesse yi do bokk si musóor yi doo si coalition yi ànd ak moom du ma ko def fu ma far foofu ngay far. yow yaay kan billaay boo ko deful man ak yow duñu boye eh, waxuma yow yaay kan laa tafa waxuma yow yaay kan tafa waxuma man maay kaaw yaay xool man maay kaaw fu ko neex lay bokk man maay kaaw fu ko neex lay bokk afeni boo ko dégg afeni afeni lii la booy wax man yow moom duma la lebal deux ah. centimètres yow boo waxee rek deux centimètres maa ñaaw day doon dama lay wax sama wax sa wax xaju ñu si bunte merde la sama kanam moo mel ni merde booy wax sa merde ay ah, yow sa jabar eh, ah, yow demal naa ni ndox yow demal naa ni ndox gis nga man sama waxu démb mooy sama waxu tey maa ngi ci tonton Tafa tey maa ci suba te taima maa ngi lay xaar nag loo ci bëgg rek ñu dem ci yow Tafa waaw yow faral fi nga moo la jaral sa sëy ma waxuñu waxu sëy waxu far la ñu wax. yaa ngi moo leen jëral cesse. ma ne demal ànd ak ka ngay àndal man ma ànd ak tonton dafa. Ah. Soda ñaata laa leen joxoon. Soda ñaata laa leen joxoon. Soda ne ñaata nekkoon ca enveloppe ba. Soda ah. bii naa waaw mbooloo. barki Rasul la bari na moom. déedéet yéen seen enveloppe laa bëgg ngeen wax ma ñaata ngeen bëgg fii ma toog. ah suñu enveloppe duñ ko waxee fii ci diggante ma tëdd ba guddi. na leer na leer na leer ak yàlla naa ko mokk suuf. Soda bu fekkee tene nii danga nar a ànd ak Tapha yàlla lekk xaj. Hmm. yow di nga lekk maami xaj. xaj yow di lekk xaj teg te mbaam xuux. ñi ko fi waxoon lekk nan ko de. soo ma ko waxatee Tapha dañuy xeex man koy xeexal. am responsabilité personnalité du ma xeex. am na ñu ko fi waxoon lekk gunu de boo ko waxee di nga ko lekk yow lan la jaral lan moo la dal yow lan moo la jaral lii. lu ñii ñii nga am ñii ñooy sa mbokk yow la ngay daw di ko wuti ca biti yow mi ngi sa biir kër yow lan la wax ngay wax yow eh, lan la bu ma faral ngay faral amul wax bi léegi un point un point un tiré man la faral man lay waay dafa ba ma wax la ma wax wax bi jabar lay wax sama jabar lay wax commencé naa lekk xaj sama jabar lay wax sama sooda seen enveloppe bi ma leen joxoon bàyyi leen ma wax la ci ne ñaari millions yi ci ne dinaa ci tegal ku ne seetal woon nga tudd ko bëgguma woon nga tudd ko bu ko ca jox dara comme fa la far kay na def foofa waaw ah, kon baax foofa ko leen àndal Moussa Fa ko leen àndal Moussa ko leen àndal man lay àndal ko leen àndal war na yàlla tey doon di doon tey doon nagu si sama jabar su fekkee du ma leen porter pelente yéen yaar demal toog waay amoo benn fulla sa legoo téeméer bi nga soog nga ci yàgg de yow koo faral ba ni rek nga dem ndax xaali dix la nga ca ramise <laughs> dix mille francs ay million ngi kër gi te doo ci moom kay rëcc <laughs> day jooy <laughs> lenn bëgg naa la ko yëgal de bu juumee ba nu gañee jabaram ji da koy ñàkk ndax dinaa doxaan jabar ji suufu ko su ma jëlee ñaari fan nga jël ñaari fan këlëmti ko lu këlëmti ko koy këlëmti ko jabar ji gëmul dara waaw jar yow yaa sol yére bu vert bi ah waaw ñëwal maa ngi nii man maa taxaw nii waaw.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 loolu yow boo duggee ci biir bul gérer bul lijjanti sa ci dara dama la fay pour nga fotool ma fotool ma. ci des man dinaa ko man lan lay am. dal. eh damay liggéey yow tamit. yow man xam naa da ngay liggéey moo tax la mais boo defee ndànk dinaa la wax ñaata la yow dèjà sa kii bee kañ nga foto sa digganteeg foto yi ngeen di foto kenn fotootu ko ay foto carte ngeen def téeméer dal.

jox naa la 10 000 nga ne naa la dolli 5 000 mais li ma bëgg yow loolu nga may defar paa yi dañuy campagne mais campagne bi méttiwul du maire du dara chef de quartier la te ci kaw seef de quartier boobu mën nañ ñëw liggéeyam ak yow ci boo dalee mu continuer liggéey bi mel ni damaa bëgg a jaar seen kaw jàll yow géréel ma wàllum photo yi te bu ñu jógee fii am na feneen fu ma la war a mën a yóbbu xam nga lu may bañ foofoo gën a nga jéggi ma des fa lan ngay jéggi ma des. yow fa eh, jaar seen kaw awa ah, eh, yow tamit ndànk. dama ne nga def ndànk yow jéggi ba di fa des man maay jéggi maa moom jéggi bi yow foto laa la sant mën nga mënal nga ma lool. damay fat fépp. waa jeex na kon léegi nag comme dangay fat fépp fatal ma fépp bu ñu jógee ci kii après ñu dem ci keneen parce que am na beneen paa bu bëgg a farlu chef de quartier. schéma bi daal bindee ko crayon bu ñu paree gome lépp nañ dem. ñëwal ana dërëm. exil ah, photographe. waaw ñëw na ñu ngi photographe. ah moom mënoon mënoo xaar ma kii passé sama buy ñëw. wala baax na ni. fan la. ñëwal nii. donc baax na kaay leen fii. Ah, ah, fii baax ah sama waay. ziar. yéen ngi am jàmm. waaw sant ça loxo bi. jox ko ko waaw da def. waaw fii gën baax. Mm-hmm. kii nag laa leen doon wax. waaw mooy photographe bi. Mm-hmm. Euh, ku mag ki nekku fi mais kii la yebal ah. te moom bu fi nekkul kii mooy faral di def te photo kii yee gën set photo kii yee gën a leer léegi nag ah, makki nekk mbaa ku ndaw xam na dara la ilaha bu fi nekkee sax kii la yoon bu ma saboote de ku ki monte rek lay def <laughs> booy na ngeen def nekk fi daal di voyage déedéet yow da ngay déglu ay wax ah. non dama mën rek waaye yow eh, yow nag la la mooy sa problème ki lañu ñuy fal ki wu quartier bi. ngay waxee mom ni war ko indil eh, eh xoola eh, eh, déglu man duma ma sa morom ba ngay wax ngay déglu samay wax. na bay na bay na bay non non non non na bay kaay kaay da ngay perte élection yi de. da ngay perdre élection yi de. grand eh yow lan la yow ya mom nit ñi. waaw oh, d'accord non damay wo sa patron léegi te xam nga li la kii fee. nañ ko waxtaanee. taxaw len mu foto len xamna li ma leen wax jël len position. salaamu alaykum non non bëgguma li lii laa bëgg génneel ma balcon yi. booy xanaa man góor jigéen laa bëgg naay balcon. mais maire yi laa war a voté. Eh, eh, yow damay dëgg saxoon dama nga naan ko génneel ma. balcon maire yàlla duul waa yow. yow yaa réew. góor gu ne nga naan ko génneel ma balcon yi. waaw léegi waxtaan la moom mu ñëw ma foto ko. doom ra. amul lu muy waxtaan. Ah.

non wàccal ma loxo bi c'est bon melal ni man kenn yéen c'est bon changé melal ni ko xool yi nii bàyyi ma toog dara waaw birima birima bi. waaw eh yow birima do yow gaawal kii ci la bokk de ci photo yi. c'est bon léegi xoolal may ma bi may ma bi. waaw mais mu kii ci la bokk. te yàlla sunu borom. dina ko reer bii. xamu fu nu jëm. dugal ma xool ba xam eh. mais de tam doog tam doog taf ko. ñeent ñaare Boy, fort, sax yor jox individuel ba même bi ban. ay la tàmm photo mal. <laughs> léegi jël pause bi la nekk. jël boobu de. duñ ko taf de. jox jox <laughs> du ma rek. nga defal rek. nga eh oui sama bail. non non ah. Ah, eh, la ah ah c'est bon wala. ah c'est bon kay mais c'est bon bu ragal. dama jox ko non, non, non, non, non, non, non, non, non, eh ay non, kër bi fii rek. dernièrement xol bi xol bi nga am ci kii. Ah, xol bi nga am ci kii waaw kon ba ba ngeen ko gaa yi wuteel leen. pour xol bi nga am ci kii. noonu da ngay siggi nga ko fii. waa tegal fii xol bi. mel na ni koy wax I love you. I love you waay. waaw. <laughs> c'est bon <laughs> <laughs> jàmbaar bëgg naa ñu ay ah, ah, rafetoo de. non non non am leen benn ko fengalante leen mel na leen waaw. fengalante wala. defal ginnaaw defal ginnaaw moom. non boy, euh, ginaaw la ma wan. Moustapha xaaral photo la ni def daf yoy dafa sensible def ni wan ma ginaaw ma def ni eh, eh, waxuma nga ah waaw waaw Ba léegi nak bu sigil xool leen fii Mom d'accord nako. bi ngeen koy def bi bi bi bi. Ah, joxoñ bi bi yi kay ginaaw gi joxe ku ne jox sa morom gi def nga def waa baax na amul problème. jërëjëf booy woo sa patron jërëjëf euh, bu mu ñëwati de. man kat kii damaa mujjee jaaxal. def ay mag ñu toog ñun ku ñu fekk ñuy photo di def nii wax di di rakat yox di bii ju ba loolu moom naa jigéen yi muy photo photo anniversaire yi boo dee def comme xale jigéen yi ñuy def xam naa yooyoo tax mu jaaloo mu saa naan ko génneel ma say ans bi génnee ah. gis dërëm bu sànq. dangay dangay rafet. dangay <laughs> jongoma ba ba ba ba ba dañ koy jël dañ koy jël. kii boo dama jur élection yi foo jël ko man daal bëgg naa ngeen moytu genre wax yooyu jongama ak yooyu ci góor gis nga photo yi ñu photo nii bu ñu jëlee yëf yi mhm. dañu koy taf ci kaw kër gi fii mhm. ku romb xam ne photo yi lan photo ci dama baax dëgg la de ajar nan léegi nag ñu ngeen a egg ci biir waaw waaw man tamit ma jéem a déggante ak yeneen kii baax na jërëjëf damay dem ci mbootaay baax na waa kay inshallah <laughs> ok ay man fan laa jëm kanamu dërëm gaajo bi dërëm dee ngi mel ni uh-uh. nga xool ni rek ne am yaa ñaaw kay probio naturel mbokk sen jaxlé jexna probio naturel daf flin indil ñaar ci ay produits de bio 100 naturel ñu defaree ko ci gàncax bi naturel daf leen indil probio naturel alde muy produit bi nga de daf lay renforcer carrément ci walu sëy tagalé la ak ay jafé jafé new katan ay mbiri tële nag moom da koy dégg rek wayé naturel simpi bi nak bi nak moy sen yaram ci wàllu manam maanaam mbooleem lu ngeen amoon ci ay jafé jafé